li ñuy gis mooy ndaw yoo xamante ne ñu ngi fi bëgg nañ liggéey mais amuñu métier léegi li ñu gis fi wane na ne ndaw yi li ñuy def mën nañ ko jàng nañ ko donc mën nañ tay tay xëy dem liggéey direction bi day jàpp ci loolu wax naa ko sànq à travers conva euh, base de données accueil emploi bu ñu ñëwee ñun entreprise yi ñëw ci ñun bu ñu soxlaawee profil yu mel ni ñoom yi ñu yor dañ leen di boolee entreprise comme ça ñu dem mën a liggéey loolu direction bi da ciy liggéey bu baax te ñu ngi ci jàpp ak programme d'urgence bi nga xam ne état moom la tëral fan yi pour gën résorber euh, le manque d'emploi pour que ndaw yi gën a mën euh, chômage bi daanaka ñu buñ ko jéxalul tam ñu gën ko koo wàññi. Euh, CACSUB dafa ñëwone choisir ben IXIGA ben école bo xamné dafa bok ci école de partenaire CACSUB bi buñ ko défé programme culture bobu ñu xol école bo xamné qualité def na 100 ci BTS yi nga xamné dañ koy def. Nous choisir que pour abriter le séminaire de formation de la gastronomie thaïlandaise la une culture qui donne le socle de la coopération entre Sénégal et Thaïlande Nous avons ci que euh, fan étudiants des mais aussi nous euh, avons a xalaat pour comité de suivi parce que les fi am tey ñun dinañ ci parce que depuis 20 ans nous avons un projet pour nous. ndaw pour seen xey ñun aussi dinañ xool ci ndaw yi surtout ñi nga xam ne dañu pare ba pare bëgg def seen propre société nañ leen mën a jàppale pour seen insertion mais aussi dinaa liggéey ak monsieur Mbaye pour que module bi nga xam ne moom lañ jàng tey ñu dugal ko ci programme bi liggéey ci direction de la formation professionnelle pour que yeneen école topp aussi SIGA mais aussi lii de première coopération je pense que ci ay kanam ci kanam tuuti ambassade bi dina ouvrir ay portes yu bëri pour que Thaïlande ak Sénégal ñu mën a lëkkaloo xool yeneen domaines yoo xam ne mën ko def surtout ak suñu école de formation. Nous avons fa daje pour euh, dérouler ñaari session de formation sur la gastronomie thaïlandaise Nous avons fait dañ ko am grâce au partenariat de l'ambassade am ak ambassade Thaïlande mais aussi ak ACSUP bi nga fait ne tey jii euh, moom lépp moom la. ñuy ñuy di remercier aussi son président monsieur Ibrahima Elwassa am na 32 jeunes yu xam ne dinañ leen tàggat mooy fukk ak juróom-benn ci suba gi fukk ak juróom-benn ci ngoon gi am na seize fukk ak juróom-benn yu njëkk jàll nañ ba pare ñu ngi waajal nag pour jël yeneen ci fukk ak juróom-benn yi nga xam ñoom ñoo tàmbali loolu buñ ci paree dinañ am fanweeri ji jeune ak ñaar ñu xam ne formé nañ leen ci gastronomie thaïlandaise. waaw suñu yéenee mooy mu dem au delà parce que SIGA dafa nekk ci ñeenti département département administration commerce département informatique système département génie civil électrotech département hôtellerie restauration donc pour l'instant première euh, phase partenariat concernée concerné département hôtellerie restauration ñi ngi ñaan yalla First I would like uh, to thank. Uh, Tout d'abord, euh, j'aimerais remercier le Centre SIGA et le CACSIP de nous avoir <coughs> donné l'opportunité d'organiser cette session de formation en cuisine thaïlandaise. I think this just the start. Euh, cette session représente juste le début de la coopération. Et c'est une chance d'avoir CACSUP et SIGA, Sénégal, SIGA, le centre SIGA comme partenaire. Et j'espère qu'après, au sortir de cette formation, ils pourront intégrer la gastronomie thaïlandaise dans leur programme. Et après l'éradication de la COVID-19, j'espère que le gouvernement thaïlandais va mettre les moyens qu'il faut pour envoyer, trouver des bourses pour les étudiants, pour qu'ils aillent étudier en Thaïlande dans le, cadre de la gastronomie thaïlandaise. Nous avons établi les relations diplomatiques euh, depuis 1940 et depuis lors, euh, elles se portent très bien, elles sont très proches et cordiales et elles sont, elle est la, coopération est diverse, notamment elle s'élargit dans le cadre du commerce, du sport et de, la santé, etc. La Thaïlande est une destination touristique très réputée et avant l'avènement de, la Covid-19, on avait l'habitude d'accueillir environ 40 millions de touristes par an. Mais j'espère qu'après l'éradication, on va rétablir euh, cette activité et on va également inclure nos amis sénégalais, on va les inviter à visiter la Thaïlande.